asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li ci nar a gën a fës. bokk na ci li ci nar a gën a fës li di ay éleveur di ay sàmm yu nekk ca commune yu Ngekoox Sindia ak Malicounda niki tey ji la ñu daal di taxaw taxaw métitlu ngir rek la ñuy dogat dogatee forêt classée bu Bandia loole ay promoteur daal di ko def ñoom nag jàpp nañ ne loole duut yoon tey duut yoon ëllëg ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu àddu laata làmbaaye ñaw dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ñeneen ñu amoon ne sitin niki tey ji itam bokk na ci waa FRAPP France Dégage kuréel yooyu ngir rek mu jëm ci wàllu liggéeykat yu ñu dàq ci seen bërëb caxat-caxat gu ñuy def ci suuf si ak yeneen jafe-jafe rawatina militaire yu ñu dàqee ci terme sud ñu daal di leen delloo ci seen bërëb loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ne mel itam buñ ci boole yeneen xeetu xibaar bokk na ci ak la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu tukki xalifu général de Tidiane mi dem di ba yóbbu njaalam foofee ca Medina Baye dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ne mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat tey kon tënku leen ci ponk lu ñu sàkku bokk na ci na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen lépp la fi bor Alassane Wade moo féete ci xarala gi. Sud Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo te nekk gaawoo fukki fan ci weeru octobre atum ñaari junni ak ñaar fukk xibaar yi ñu doore ko ni leen ko waxe dem ba ca Sédhiou foofe sandarme bi ñu duppee woon Alassane Badji. te mu gaañu woon nag gaañu yu métti jële ci ay blessé yu métti ci accident bi nga xamante ne ni ki aljuma la daal di mbëkk benn garab foofee ca Simbandi Brassou ci mujjantal ga nag ni ki tey ji la ñu jàpp ne nag ñàkk na bakkanam foofee ca hôpital bu chor mi nga xamante ne foofu lañ ko daal di woon rawale ngir rek daal di saytu lépp lu jëm ci wàllub wërgu-yaramam bu ñu sukkandikoo ci suñu ndaw la nekk foofee ca Sédhiou di musa Dramé lii la du chauffeur bi nag ak xale góor bi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkoon ci ay gaañu gaañu donte ne sax seen oto boobe ñaari pono yi ñoom ñoo daal di woon a klaate mbëkk benn garab foofe ca diwaanu Sédhiou. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi gouverneur bu ndakaaru daal dina jëlëpp arrêté euh, yëkkati bépp tere gi ñu doon def ngir rek lu jëm ci wàllu pour yëngutee fi xumbutee fi ak it wéy yi rawatina ci bërëb yi nga xamante ne moom la ñu duppee débit de boisson loole yëpp nag mesure bile daal dina jog niki tey ji lañ ko daal di yëkkati rawatina ci hôtel yi auberge yi restaurant yi ak salon de thé ak café yi fépp daal mun nañ jàpp ne yëf yi mën na dàmbaliwaat nu mu nekk donte sax jëloon nañ dogal fan ci weeru ut gée ñu génn ngir rek daal di dakkal lépp loole nag moo ngi nekkoon ngir rek daal di xeex ak waytandiku lépp lu jëm ci wàllu pu mbas moomee gis nañ ne itam kilifa yooyu nañu daal di fexe fonk la nga xamante ne moom mooy teg tëgtal yu bàyyi ko ci wàllu pu kër docteur ngir rek daal di fexe euh, tere lépp lu jëm ci law gu law lii lee di mbas mi gis nañ ne ci communiqué boobu itam euh, préfet bu Ndakaar gouverneur bu Ndakaar moo ngi sàkku ci préfet yu nekk ca département bu Dakar Guédiawaye Pikine Rufisque commissaire central bu Dakar chef de service régional sécurité publique commandant de légion gendarmerie ouest ak kilifa yi nga xamante ne mbir mi daal nañ leen soxal ñu daal di fexe doxal li ni mel fexe itam fépp fa nga xamante ne jàpp nañ ne communiqué bi war na egg ñu daal di ko doxalee nu mu waree niñ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi éleveur sàmm si nekk foofee ca commune bu Ngekoox Sindia ak Malicounda niki tey jii nag la daal di taxaw gàdduk seen yet ak seen jaas yi di bañ nag caxat-caxate gi ñuy def ci forêt classée bu Bandia te loolee kenn def ko lu dul ay promoteur ñoom nag ñoo ngi yëglu di sàkku ci kilifa yi ñu àddu ci laata lambaaya ñaaw Ismaïla Sow mu nekk président conseil national maison des éleveurs ñu teewlu ko ak Moustapha bi nag dafa bari coow bari ay problème parce que gis nañu tey euh, yoon wi nga xam ne moom mooy autoroute à bi jóge dakaar moom moo jaar côté west mu continue jëm Kaolack beneen bi mu nekk Ila Touba ak aussi cimenterie Saïr ak yeneen carrières yi nekk ci biir ak foore Banj loolu lépp nag su ñëwee mu installé wu ci biir forêt bi kon loolu déjà yóbbu na ci lu bari nit ñi nag bëgguñu indi ay histoire parce que man ba ma ko yëgee dama leen wax ni histoire baaxul li ci ëpp solo mooy nañu def alerte ko autorité yi nga xam ne ñoom ñooy autorité de haut niveau ñu yëg li xew su ko defee ñoom danañu ko faj parce que lu yàggul président de la république jël na benn décret am lu mu ci wax te nit ñi nag li ñu gis ñoom suuf si dañu koy siif ci nit ñi te béykat euh, te éleveurs yi nag jaaduwul ko benn petit groupe ñëw aussi bëgg dund ci kaw éleveurs yi di defaru ci seen kaw dégg nga loolu dafa jaaduwul parce que tey loo am na loo xam ne li bu ñu ko defee moo loolu mooy rey nañu centaine de milliers de familles pour dundal benn groupe bu ndaw comme nag ñoom ragaluñu def dara rusuñu def dara jombuñu def dara aussi dañuy def alerte ko autorité yi aussi ñu seetaat loolu ñu artu leen ñu tegaat leen seen place. di kaddu Ismaïla Sow nekk euh, président conseil nationale de la maison des éleveurs doon addu ci caxat caxati ak dogat dogat gi ñuy def ci àll bu banja tax na sàmm suyu nekk foofee ca commune yu si Sindia ak Malicounda nekk tey ji ne det du ci dal téeméer ak juróom benn liggéey yi ña doon liggéey ca Excelec SA ñoom nag ñoo ngi daal di xayma la nga xamante ne moom moo jëm ci seen wàllu wàllub euh, seen liggéey la ñoo sàkk bokk na ci seen droit euh, itam ak ñu daal di leen fay seen salaire ñoom nag dañ leen dàq ci li nga xamante ne jaarut yoon ci seen kàddu ba tax rek ñu daal di euh, dénoncer jafe-jafe yi nga xamante ne nag ñoo ngi ko doon liggéey ci seen këru liggéeykaay googe niki tey ji lañ ko daal di fësal ginnaaw bi nga xamante ne nag plateforme doy na moo ngi doon am Euh, toogaanu méttit lu foofee ca place de l'obélisque Abdoulaye Niang moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko ak ji Bari. dañ doon liggéey benn entreprise bi ñu naan Excelec moom mooy Exmina Mina distribution ñu ñëw dafa poto lampe en béton armé yi di liggéey ñu ba ñuy laaj ay contrat signé lu leen contrat te lu wax nañ ko état te amul gars yi en 2019 ñu signé leen contrat CDD contrat à durée déterminée contrat bi daal jeex gars bañ nañ ko signé sax dañoo bañ a ñu imposé ñu signé ko contrat yi daal a ñu ne leen déedéet kaay leen jël seen salaire yéen kese bu ngeen jëlee seen salaire ngeen kon ne liggéey bu ngeen jëlul seen salaire yi ne leen doono mu ne ku bëgg jël salaire am na ñoo fekk ma fii gars yi ñu bëgg na jël seen salaire ñoo fekk foofu ñu ne leen non soit vous prenez la ngeen jël salaire bi ngeen ñëw liggéey wala soit instant gars yi liggéey ba wàcc jot bu ñu xëy lan laan demee fekk ñu tëj seen loolu moo jaaxal ay eh, ñëpp ñoo leen leen jaaxal waaw lan a instant ne dàq cent trente six personnes c'est la première fois bu fekkente ne inspection du travail daa mos a ñëw inspecté ñu xool rapport yi inspection du travail wax ndax c'est avéré ou pas bu fekkee inspection du travail dafa bindal ay rapport yoo xam ne faveur seen faveur la ñu ñëw laaj ouvrier yi xeexuñ gulawuñ bëgg ñi fa nekk depuis 2016 ba léegi ñu fay leen seen i droit rek jox leen seen ba léegi ci fànn boobe la ñuy des plateforme doy na niki tey jii ginnaaw bu mu amepp ndajaloo boobee ngir daal di métitlu lu mu jàpp ne nag duwut yoon bokk na ci caxat-caxate gu ñuy def ci suuf si ñu ñuy dàq yenn këru liggéeyukaay yi ak it bachelier yi nga xamante ne kenn orienté wu leen ba négee si loolu yëpp doon na la nga xamante ne moom moo taxoon nag ñu daal di am ab toogaanu métitlu niki jii foofee ca place de la nation ci teewaay aju Fatou Ba brassard yu xonq wala sax ay morceau yu ñu daal di takk ci bopp bi wala sax ay t yu xonq euh, tey ci place de la nation ñu ko doon tuddee obélisque ku nekk ak sa mënin nga daal di teew ngir rek wane sa li la naqar yi ñu ñëw par benn benn yéeg ci kaw tribune bi ku nekk nag wax li la naqari sa biir xol benn talib sow bokk ci FRAPP France dégage waaye itam plateforme doy na moom mooy porte parole bés bi sax tey. tey soo jëlee waa Pakaaw nga xam ne ñu ngi xeex courant boo xam ne amuñu ko soo jëlee étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo ngi naan nañ leen orienté ñii naan nañ leen jox ay machine soo la jëlee tey waa Terme nga xam ne déguerpissement la wala bokk yeneen mbir yoo xam ne dafa ànd ak foncier donc fii tey ñun euh, astuce bu ñu gis mooy dañuy fexe ba ñëpp ñoo xam ne fi mu nekk nii dañoo am ay ay ay problème ci réew mi ay problème yoo xam ne c'est vital euh, ñu fexe ba ñu dégg ñiy jaxat-jaxate wala sax ñi nga xam ne dañ leen di dàqate teguñu ko fenn waaye itam ñi nga xamante ne dañuy yore seen salaire. tey kenn koo xam ne da nga dem sa côté sa wet sa côté di xeex yaakaar naa kenn du la déglu mais soo ñëwee fii nii ànd ak nit ñi di xeex di ànd ak ànd ak sa yenn morom yoo xam ne xëy na bokkoo leen problème mais nga ñu ànd di xàccandoor di dóorandoor yaakaar naa def dina lañ a dégg dégg ñu bokk ci lu ëpp ñaar fukk ci ay organisation ñoom nag dañoo ñëwoon wuyu ci woote plateforme doy na tey ji ngir wane leen naqari ñuy wax nag ne xeex bi du fi yam lu mooy rek li ñuy wut dañ ci daal di jot aji fatu bari bàyyi ko fii ci ndakaaru dem ba ca ndar foofee juróomi école primaire dinañ leen defaraat loolee dañuy sukkandiku nag ci programme bi ñu duppee PACASEN budget ba daal nañ ko xayma ci lu toll juróomi téeméeri million ci suñu koppar jaraafu dëkk ba nag moo ngi xam le ni itam dinañ defaraat école xayaar mbeng te ñu duppee woon ko école euh, des fils de chef loolee nag ginnaaw bu mu amalee visite la daal di xamle li ni mel Mansour Faye ñu teewlu ko Yves Tendeng. dégg na tey maanaam visite bu am solo la. ma jóg ànd ak samay collaborateurs au niveau de la commune. ànd ak l' donc de l' éducation et la formation ñu def tuuru yenn école yi parce que xam nañu ndar maanaam dama koy faral di wax. maanaam ndar comme mu nekkoon première capitale du Sénégal yàgg nekk capitale aussi ci Afrique donc dafa bëroon ay école primaire la première école primaire de l' Afrique occidentale française ndar lañ ko defaree. donc mu nekk am référence ci wàllum éducation donc école primaire dañoo bëri mais fii ñu toll école primaire yu ci bëri maanaam dañu doy waar parce que yàqu nañu ci benn niveau boo xam ni dafa amatul sécurité ci lu ci ëpp. loolu nag président permettre nañu ñun ci wàllum PACASEN au moins année bii di ñëw muy deux vingt et un mettre à disposition cinq cent millions de francs CFA pour ñu tabax ak ay école écoles yu ñuy tabax yi maanaam Charles Niang la euh, Charles Le Gros. Euh, Fanjiri Koné euh, Goxu Mbaj 1 ak Sukeyno Konaré ci 500 millions kooku moom pare nañ ko les appels d'offres lancé nañ leen te foofu amul beneen problème fii ñu toll ñi fii may wax ak yéen école Justin Ndiaye la Justin Ndiaye gis ngeen ñu ngi tabaxaat salle de classe yi 12 salles de classe yu bees ñuy tabax dindi yi fi nekkoon te loolu ci budget mairie la jóge ci wàllum 80 millions de francs CFA donc def nañ ci effort bu am solo xayaar meng xam nga bokkoon ni bi mais am na benn waay ju baax boo xam ne wax naag moom léegi dans la semaine u semaine prochaine au plus tard dana yónni équipe am ñuy ñëw defaraatel ñu maanaam xayaar meng loolu mu nekk une très bonne chose parce que ñëpp xam nañu xayaar meng moo école des fils de école bu njëkk ci ndar xayaar meng la donc mu nekk école bu am symbole te dafa nekk à un niveau de développement très avancé mais mën nañ ko defar su ma jëlee wàllum Sokone Konaré c' est vrai bokk na ci Pakaseen waaye école Sokone Konaré dafa am problème assainissement parce que ndaxum taw mi euh, moom moo ciy dugg parce que dafa xaw a suufe ci ndoxum taw moomee la lañuy àddu bàyyeekoo ndar dem ba ca Saloum doomu dëkk ba daal di génne lu toll ci ñaari million ci suñu koppoor mouvement ànd defar Kaolack moom moo ko def loolee nag ngir daal di wàllu ña nga xamante ne dañoo loru ci mbënd mi Amadou Diallo kenn fa ñoom nekk entrepreneur ci travaux publics nekk njiitalu mouvement boobee di woo doomu Saloum mi képp ku nekk daal di ci sumbub loxam ci projet boobule ñu teewlu ko ak Mamadou Kam. mouvement bi nga xam ne dafa créer fonds de solidarité pour que ñu dimbalee ñi nga xam ne tey dañ nekk ci inondation donc mouvement attaque mu ngi woo képp koo xam ne doomu Kaolack la képp koo xam ne da nga wane ne tey Kaolack daf la ñor parce que tey ñun ñoo war a delloo Kaolack njukkal Kaolack lépp lu mën a def ci doomu doomu Kaolack yi yaakaar naa def na ko pare kon doomu Kaolack tey moo war a delloo Kaolack njukkal il faut que ñu bàyyi xel ne xam ne dëkk bi li koy defar mooy Kaolack waaye fi dëkk ñoo koy defar et li nga xam ne mooy division bi nga xam dafa am fii dans la politique tant que mu ngi am fii Kaolack mooy perte te Kaolack war a warul perte Kaolack dafa war a gagné donc man en tant que doomu Kaolack tey dama initier lii pour que ñu xam ne tey bu ñu defee fonds de solidarité bi képp koo xam ne xeebuñ sa 100 francs xeebuñ sa dërëm mën nga ñëw taxaw parce que am na transparence aussi nit ñi mën nañ ko contrôler c'est pas notre mouvement moo koy contrôler yaakaar naa ne boo ko àndee bu ñu taxawee li nga xam ne tey moom lañ bëgg Kaolack waxuma la rek sinistrés yi mais mën nañ cee def leneen li nga xam ne tey mën nañ dimbale ñi nga xam ne mooy doomu Kaolack yi ñu am nag benn jàngat boo xam ne tey dañ ko jàngat biir Kaolack parce que tey Kaolack dañuy gis ne parmi toutes les régions du Sénégal moom moo ci gën a reculé mais lan moo tax mënuñoo taxaw ñun doomu Kaolack yi ñu xalaataat xool ne tey tant que defuñu autour du table Kaolack mënuñ ko defar parce que Kaolack tant que ñu ngi toog kii jaar fii kii jaar fii pour ñu defar Kaolack du yomb. Kaolack googee lañuy ñuy des ci tukki euh, yóbbu njaal bu xalifa général bu yi di Serigne Babacar Sy Mansour foofee ca commune bu euh, communauté bu Niassène yi moom nag ginnaaw bi nga xamante ne euh, xalif bu Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima ñas daal dina dëddu àdduna nekki tey jii nag la fa demoon daal di jaale ji mbokkum yooyee euh, dellusiwaat na itam ci relation bi dox diggante njabootu Medina Baye ak Tivaouane ñu teewlu ko moom xalif général Serigne Babacar Sy Mansour ci micro Mamadou Camara. illa li yaabuduun. waaye itam. mu teg ca ni waabud rabbaka. xatta yaatiyaka alyaqiin. nee na kon nit. ci àddunaam. mën na cee am noflaay. mën na cee amit congé. waaye wàllu yàlla. moom. liggéey ba dee nee na mag ñooñee fa mu jafee. fa mu jafee woon. nga xam ni booba dund yombul. dem yombul. demit yombul. ñu fexe ba ñoom ba seeni xol. di laalal ko laalante ñoom. na te mooy la dox seen diggante ak seen borom. nee na loolee kat la ñu dundal ba seen xol ya dund ca nee ñu ne ci jafe-jafe waaye mu itteel leen lool nag ba la ñu doon def nag ka leen ko doon def loo kenn mënu di ku kenn mënu la jaar fenn. ku def li mu bëgg. képp ku def lu mu bëgg rek. xam na ko moom yàlla. yàlla suñu ñaari maam yooyu mu tudd nee na mu nangul leen ñoom ñaar. ak nag yeneen gaa yàlla yi ñu bokkal dëkk réew mi wala adduna bi. yàlla nangul leen. yàlla nangul liggéey barkeel. ba buuxante bi xew léegi. seen barke liggéey la. nit ñi ëppaluñu. nit ñi ëppaluñu. seen pas mos pas moo toll foofu. ñu xër. ñu xër nag. fas yéene sonnal yàlla. fas yéene sonnal boo mënula àgg ca yàlla. boo mënula àgg ca yàlla. seetal ku yàlla waayoo. seetal ko defar ko. nga sonn ca kooka. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire à la fourniture d'une énergie propre et bon et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie de croissance, vous offre Wax sa xalaat 88 lay doon 628 98 98 biti réew kon tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Sud géej waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. El Hadj lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyu baax euh, Birama. Mhm. Birama dama bëggoon wax rek ci front euh, boobu nga ma dégg ñuy laam-laamee muy coalition boobu diggante euh, PDS ak. Euh, waa Sonko yooyu man damay wax rek ne comme dama ko daan waxee dañuy sàqar mi lañ ci ñu dara dañuy nax seen bopp euh, te yit nag euh, attention li ñu nekk tamit dañ ci dëggu ah, muy noon ak mbañal gi ñu bañ mag sàll loolu rek lañuy ñuy di jeqi waaye fu ñu jekkee rek mbir mi dey na sax parce que boo leen xoolee ñoom àndoon nañu ñoom waa front résistance des boobu nga xam ne front résistance nationale boobu nga xam ne tey coalition la woon boo xam ne dafa ëmboon parti politique yu bare bare bare bëri tey maa ngi dégg ñu def ay en détail ñuy attaqué Sonko ne Sonko la mu leen gëmloo woon euh, nekkul li nga xam ne moom moom la ñu gis kon mel na que ni kon Sonko nit ñaa ngi koy gën di xam man loolu rek laay ñaan yàlla na yàlla yàlla na nit ñi xam kan mooy Sonko bu ñu ko xamee rek euh, danañ noppalu. Euh, beneen bi ci topp aussi man PDS man damay jàpp ne ñoom dañuy wër di wàlli bañ ñoom ñoom moom dañ leen di comprendre aussi ndax amuñu amuñu candidat seen candidat mu ngi di tëdd ca naar ya ñu koy ñu koy njoñal ay ay gëlëm di ko jox ay meewu gëlëm ak soowu gëlëm muy naan léegi nag naan leen xeex leen defante leen te nag Sénégal yi moom boo xam ne Sénégal yi moom benn bàjjen la fi am moom yaakaar naa néegu ndeyam France la nekk wala Maroc kon jàpp naa ne kon mënul jël jox ci maayu nu Sénégalais yi beneen bi ci topp drama hmm. euh, bu ñu tolloo ci antenne libre damay delluwaat euh, Saloum di wax euh, président de la République ne ko na bàyyi xel bu baax ci jafe-jafe yi PDS amoon ba jógee muy problème mu courant man de ñaanu ma ko yàlla damay laal ban waaye dama koy alerte ndax magam xamoon naa ko waxoon naa ko moo gën magam xamoon naa ko te ndox mii li mu bënn ci ay forage bënn ci nit ñi di ci bay ay tool di ci tabax ay étage di ci tabax ay terrasse tey benn benn benn société ñëw bëgg ko koo xañ muy seen o yaakaar naa ne war naa taxawaat defaraat loolu ndax tey ji tey àll bi seet dañu am problème mu ndox loolu moom dama koy wax ba ba muy fajoo ndax duma mën a nangu mukk ñuy dox ci ay maayinam ministre bi na wax ak moom ne ko contrat yi mu signé wante euh, société boobu muy o baaxul ndax mu ngi rey euh, doomu adama yi. ana si yaa ngi bënn ay jaan a ciy naan ay leneen a ciy naan bu ndox coupé bu courant coupé ndox moomu day duggaat ci tiwo yi duggaat ci biir biir biir biir euh, tiwo yi nit ñi di ko naan xale yi nga xam ne seen seen biir yi amagul doole ñu seen biir yaa ngi daw ñu ngi am ay jafe kon Félix O non grand temps o jërëjëf El Hadj Alioune notaire foofee sax gis nañ ne euh, ñetti milliards ak lu teg génne woon nañ ko ci mbas mi ngir rek lu jëm ci wàllu jafe-jafe ndox yooye ba léegi xanaa dinañ ci andi ay leeral ci fànn boobule ñu jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Birama. waaw. Ibrahima Ndiaye Pikine Grand Ray moo lay nuyu. ñoo ngi lay fay. ñoo ngi santaat su borom bi tabaraka wa taala di julli Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam di siyaar sëñ Abdou Karim Mbacke ak Cheikh Mouhamad Rafael Mbacke wax waxaat du bëri wax leeral la hmm. ndax démb dañuy wax ci benn rajo maanaam lenn ci taalibe yoo xam ne daal li ñuy doxali daal euh, gërëmuñ ko am benn seen ndaw du ma tudd turam sax daaj suñ kaw ne dañuy ŋal ŋal ci rajo yi ma di ko xamal ne ko góor gi si Touba la nekkoon néeg yooyu tegu ci yoon bàyyi laat xëy suba génn ko Touba ma ngi diggante ko saa san jaarem ku fa dem fekk fa këram bi ci ne mooy ay ay ay da jàll mi ñox ñàkk tëkku ci digal moo tax sëñ bi ne ko kon bu loolu amal ma dëkk bi te pourtant am na taal yu wax ne nag ba sëñ Fall dañ ko bàyyi diine moo tax bi ñu tabax jumaay Tuubaa Senghor ñëw dugg ci biir dëkk bi sekkaay dàllam ba ca biir ba ca borobu sëñ Tuubaa jël di kaptaram ñibbi taale bi di ko kaas ba daal euh, sëñ Fall ndax taal bi ñoo yeboon sëñ sëñ Fallu waay waay waay waay man defe naa ne yàpp yarama waay daal bi a sel waay maa ngi musul ma juróom fukki at waay mu mu set set mu sako jënama yàpp yaram moo tax ma ne ko na sol daal waay kon na nit ñi am dégg yoonu sëñ Tuubaa dëgg la am na ñu ci juboon mais ñi ciy def ak jubadi ñooñu lañ nañ leen sekki ci nañ sekki nag dégg sànni leen ci àll ba li fi may jeexal nag rajo bi ñaanu ma yàlla mukk ci wax fi loo xam ne day lor nit wala ñu new dootoo waxee ci rajo bi te itam maa ngi ñaan nañ joxante cër ku doxul ci yoon dañ laa wax ne doxul ci yoon waaye du caangi ne man damay wax ko pare kenn jóg ne war a waxee nii non non wax sa xalaat la ñu wax man bii xalaat bii la am ñuy wër di ci mbedd yi ni mbubu yoonu sëñ tuwaay naqari na murid yi nañ ci wax loolu kay sañ naa ko wax Touba jëm sa kanam numéro compte am loo joxe dugal ko fa yaag yàlla rek ba baara mbedd yi xam ni ci réew mi murid rek kay yelwaan loolu ma naqari foo dem ñu ne xoolil murid rek mais te sëñ tuwaay la wax jëriñu sëñ tuwaay ne Cheikh Rafal ne ñàkk ñuqi joxe loolu na jërë ngeen jërëjëf Ibra Ndiaye Pikine uh, ginnaaw ray ñu daal di jël keneen ci ligne bi. ci salaamaaleykum aleykum salaam. Birama Ndiaye Kër Madaro. Kër waaw. Ah, ah, mën na ne de. gëj naa ko dégg de. Ah, bayul dara mi ngi Ndakaaru de. <laughs> déet waay. <laughs> maa ngi lay ziar maa ngi koy ziaraale moom tamit. di ñaanal Sénégal jàmm di ziar njabootu si laaj Malick di ñaanal nawet bi nag yàlla na ko yàlla yëgal ci jàmm. waa man na mm-hmm. Birame. Mm-hmm. parfois damay dégg nit ñi di laaj benn dañ naan Sonko la moo tax nit ñi bañ Sonko mais ki la ki koy laaj moom na laaj boppam moom lu tax bañ Macky Sall affaire bi loolu la rek ah ànd ak ñàkk ànd la rek ànd maag Sonko ni ñëpp ànd na Macky Sall la ñu àndal mais ñoom ànd ñoom moom laaj ñu lu tax ànd ngeen bañ ko non loolu sans ay questions yoo xam ne ça ne se pose pas quand man nag euh, Birame mm-hmm. sama frère Barthélémy Dias sama camarade de parti man moom laay wax sama camarade laay wax sama ancien de parti moom laay waxal bi ñu nekk jeune socialiste moom nekk suñu président dama ko seetaan bi ci benn télévision di rafetlu nag li mu jàppale ñooñu ñu terme si ñu génnoon foofu geste ba mu rafet na torop torop torop mais lu ma koy laay biire Guy Marius Sagna ak Ousmane Sonko seen objectif mooy boo décompté ci biiru xeet lañu bëgg a moom warul bokk ci yooyu parce que ñoom ci la ñuy dox ci la ñuy wax te moom def na geste bu rafet ba ñëpp dégg ko beneen bi amuñu boobu damaa dégg président na da nga jox huit cent millions huit cent millions boo ko séddale cent dix neuf personnes mun Sénégal dix millions yu teg aslëf waaw léegi man nan lañ ma mën a nit du digg ma dix millions may topp ku may ku may téléthon xamu téléthon may nekk mais loolu mooy la état moom moo gën a wér ay téléthon ak ay leneen ak leneen nag moom man néew ma bu kenn dimbale kenn waaye man nag mënu doon conseillé damaa nañ ba diglu lu leen état naa loolu moo ëpp solo maa ngi ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ñaanal président mu gees waa àll bi jërëjëf. jërëjëf Bathie Ciss Kër Madar ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. 628 98 98. asalaamaaleykum. El Hadj Birame Ndiaye wala Birame Diop. El Hadj Yankoba. waa njaaxaan naa caayaay de moo lay siyaar. delloo siyaar. ah di siyaar si technicien boobu Pape Laye wala. Alassane Wade Alassane Wade Pape Laye ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaar samay waay la. Euh, la ca dolleeku mooy di dénk as li ma leen daan dénk rek di saare nag euh, alaaji mbay laay fële ci Cambérène nañu bàyyi yee fitna ci wax nañu bàyyi yee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn gu kenn du xeex moom wala ngay bëgg a xeex moom voilà la preuve euh, tubaab nag nee na ku sag nak jeex ngay aj ci ko nañu rafetal kàddu yi yaakaar naa ne dunguru am na lu mu gën la ca ku mooy opposition bi fu ne la ñuy waxee fu ne la ñuy duggee fu ne la ñuy génne noonu kese la ca dolleku mooy di féliciter encore une fois président la république ci juma ji nga xam ne moo nekk njaareem defal ko ay kayit yoo xam ne adduna bépp xam ne defal nañ ko ay kayit titre foncier naa ñeenti président jàll na fi mënuñu ko woon a def defar ko marché euh, defar ko juma jumaay euh, euh, Mbàkke xewar defal ko titre foncier président yu bëri jaar nañ ci mënuñu ilaa Tuubaa bi amati na ndam ci yi jumaay yi eh, njaareem ji amati na ndam ci jumaa Mbàkke Xewar amati am ndam président Macky Sall fi nga xam ne mooy autoroute à péage eh, autoroute Ila Touba bi kon la ca dolleku mooy président de la république Macky Sall am na ngërëmul sëñ Touba am na ñaanu eh, ñaanu ki nga xam ne mooy ndawal sëñ Touba kon yaakaar naa ne am na ñu bëree ngi wax ci télévision yi ak rajo yi ci dee ëllëg président Macky Sall moo lay ramu ndax am na ngërëmul sëñ Touba la ca dolli ko mooy nag ñuy rafetal kàddu yi na ñuy rafetal kaddu yi état ña fa nekk bu fekkee ne ah, am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñii mat na la bàyyi ñii mat na la ndey kon na ñuy rafetal kaddu yi jëm ci ñoom waaye nag boo boo la neex wax tuux say fin ba ne tàttu la neex wax loolu mën naa ñàkk ginnaaw bu loolu passé xalifa ñu yàgg fii te ànd ak wër ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam Birahima. lay nuyu fii de Maram Faye la. Maram Faye waaw. waaw ñu ngi nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñoo ngi lay fay bon euh, di wax ne man jàpp naa ne Ousmane Sonko euh, li mu wax Touba defe naa leer na nañ. allo. Mhm. dafa mel ni Alisane dafa mel ni kooku dem na ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Seydina Birame. Gora Baye Fall. Gora Baye Fall kër Sega di wootee Diourbel. waaw. ñu ngi lay nuyu di ñaan ci ñoom ndax dawal siyaare ñëpp di wax ni màggal gi jàll na ci jàmm yàlla nañu ko yàgg a hmm. te saa bu ñëwee jàll ak jàmm waaw ñu ngi koy ci wax ni te jëfewuñu ko dëkk ba nag ngir tawat waaye sant nañ bu baax a baax wax baan ngaa dem daanaka benn la di wax ni li ci xew nag te si Ibrahima Ibrahima kii Ndiaye moom Ibrahima Ndiaye yun ginnaaw raay di ko naqarlu ñu murid yëpp di ko naqarlu man daal li ma ci comme sama gis-gis mooy ndaw soosu buy waxati na na ci génne murid loolu moom sañ nañ ko ko wax comme ñu ko génnee dëkk bi daal na génne aw làmmañam na ci génne sëñ bi te doxee doxinu boppam ñu xam ne ca la nekk la ca dolli ko itam comme ni ko yanqoo ko di waxe mooy président moom am na gërëm am na gërëmal sëñ bi te bi yëpp ngërëm la ñuy sàkku kon ñiy ut politique di ut ay ay lay ak ak di politique sëñ bi bëggu bëgguñu sëñ bi wala bëgguñu dëkk bi moom nañu arrêté yooyu di uti argument ndax président nag daan naqaree daan ci argument parce que foo laal rek am na lu mu fa def loo xam ne lu ñuy fàng kenn du ko jeex waaw kon euh, daan ko ci argument du yomb kon li ñu mën a def rek mooy jéem a dugg ci xooli nit ñi seet seen diine jéem a leen a moom waaye nag foo ci dem rek am na fu lu mu fa def loo xam ne kenn du ko nattabi te yaakaar naa ni foofu wax dee su ko fay bàyyi jëf Cheikh Ibra ko waxoon waaw ki jën nañoo woote nag waaye hmm. la sëñ Moussa waxoon rek ki naa woy ngir gaa yi saa ci taalis te seeni bàyyi seerul yaasin waa sax ka yaasin waaw dañuy wax ay ñaan iñaan kay mooy ki yàlla fal nga ni wër ka fal wasalaam jërëjëf Gora Baye Fall Kër Sega ñu daal di jël keneen biti réew 33 841 22 33 ci biir réew mi 88 628 98 98 kon tënku leen ci ponk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mhm, sëñ bi ñoo ngi woote Tëngéej di lépp tur yi. waaw ñun ñëpp. Mhm. Eh, li nga xam ne moo xew <clears throat> <clears throat> ci laa bëgg a wax. waaw bu rëy rëy la. Mhm. kooku jaroon na muy retraité ak ko xam ne ci retraité waloo nga yëkkati débat ñu dégg la ba kilifa yëpp yëg ko xam ne lii xew foofu musiba la et IPRES ab hmm. institution sociale la te liggéeykat yi xamuñu ko ña nekk sax buñu liggéeykat yi xam te képp ko xam ne ki appuyé nga fa yow mii ci nga bokk ak ku mel ni yow hmm. et actionnaire lañ leen mën a jàppe actionnaire nag war naa xam lay xew ci këram or ñoom dañoo wéet foofu ñoom ña ko séq ak conseil d'administration te boo xoolee ay responsable syndicaux tey dañ koy xëccoo de lii nag li mu wane mooy ne la fay xew soo demee lee ci gën tuuti ay centaine millions ñuy wax ay ticket restaurant restaurant yi lan li ñu war a jox liggéeykat yi nga xam ne seen pension yaa ngi tuutee tuuti ba bu ñu ko fayee ko di jaaxle ñu ñuy wax ay ay ay centaine de millions yoo xam ne luubal ci ticket restaurant restaurant pour lan nit ñi dañu war a jóg lii moo jar a wax nag Guy Marius Sagna comme moom wax dëgg yàlla mu ngi góorgóorlu ci ne lii na ko boole ci programme am na ñëpp jóg wax ñi retraité ak ñi retraité gul la fay xew doy na mu doy doy na waar man dégg naa ci koo xam ne kii dafa bokkoon ci conseil d'administration bi kilifa gu mag la damay bañ wax turam jiite na fi ay société jiite fi syndicat patronal mu ne ba mu jëkkee dem teew conseil d'administration ñu génne di leen jox ne lii mooy seen xaw teew ndax teewaay bi ngeen teew ñu tudd koy per diem wala jeton de présidence ne dafa tiit seetal ma lii ñu alors dégg man mas naa fi wax waxati ko fi les comptes ak état financier yëpp daal bilan état état financier yu IPRES dañ ko war a publier nañu di ko ci publier wala di bind chaque fin de d'exercice ñu tiré ay fascicule nit ñi jënd ko xool dafa fa xew dañ ko war a xam hmm. lii jar na chef de l'État ak ku mu mën ak responsable yëpp ñu intéressé wu ci scandale gënu koo mag parce que lii rek moo feeñ hmm, hmm. jërëjëf sëñ boobee wootee ca Tëngéej ja ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mbaye Kane moo di jaar fii si Dakar. Mbaye Kane waa. man de dama bëgg a waaru parce que dama dégg député bu sant Sow dëkk Ranérou nee na képp ku bañ troisième mandat nañ jël jaasi bocc ko dóor la ko man ne xanaa gars yi dañ tax rek seen sago bopp moo tax sama doléance boo mu defoon fii boo koy ñaanaat rajo yëpp di teg. vaar boobu nga xam ne Macky Sall defoon na ko temps yii Abdoulaye Wade mi ngi xeex troisième mandat Abdoulaye Wade Macky woon julli gi ñaari rakka la rakka bu njëkk yi juróom-ñaari kabar la ñaareel bi juróomi kabar la Wade nag dafa ñaari rakka yi pare bëgg taxawalaat beneen rakka ñu naan ko subaana laay subaana laay subaana laay nangul dégg moom dégg fa la toll tey moom laa bëgg daal rajo yi ko tegal baa boog ma jaar service commercial fay ñu ma koy tegal parce que loolu c'est très important ñu koy def ci ko def ba deux mille vingt quatre jot comme ça il nous aura pas lu parle de troisième mandat ici ñun du ñu Guinée du ñu d'Ivoire dañu bëgg a avancer en démocratie li si des mooy anarchie bi ñu gis si réew mi ay nag ci ci ci devoir nouvelle si ay nag à Rufisque vers foo jaar ay nag a fa nekk ah yaa ngi may waaw. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax kay. nag yooyu si réew mi. Mhm. les préfets ne font rien te boo fi defee marché ñu interdire ko nag yooyu ñu gën a dangereux ay ay marcheurs doon ñoom fu opposition defee marche mbaa demande de manifestation yu mel ni seen photo yi bëgg a tëb gëmmuñu gëmmuñu ne seen wërsëg fu mu jeex ñu jóge fa mbaa ñu mbaa ñu dee nag yooyu nañ si jóg da yóbbu leen fourrière def leen si ay camion daal di koy jox aux prisonniers mbaa ñu jox ko ñu néew doole ji dëkk daal di feex ay nag si biir réew si biir capital moo am nag si àll lay nekk jërëjëf jërëjëf Mbaye Kane ci ndakaaru ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum waaleykum salaam Birame. ñoo bu baax a baax a baax. delloo ziar Sall. Eh, Birame. waaw. gis nga la ma waxoon waa kër Ablaye Wade ya. Hmm. moom laay wax waa kër Macky Sall muy lan. booy boo ñu ànd ak dal te gis nga opposition bi ñuy saboté. Hmm. ñoo leen di remplacer ëllëg. ak lu ñu mën a mel nag ñoo fi ñoo leen di remplacer te duutu yàgg sax nag yàggatu. ku fi dund bàyyi da nga ko fekke loolu laa doon wax waa kër Ablaye Wade bañ fi nekkee. Hmm. te doon wax naan bu fi Ablaye Wade di jógee kan kenn kenn mënu koo wuutu ma ne leen opposition bee ko mën a wuutu te ñoo koy wuutu ñoom ñii itam nañu dal te xam ne Macky Sall dana fi jóge te opposition bii ñoo koy wuutu ndax ñoom ñoom fexe nañoo fexe fexe fexe ba nga xam ne politicien rek mooy jiite Sénégal te ñoom dong ñoo fi ay politicien ñoom ñi ci pouvoir bi ak ñoom ñi ci opposition bi kon ñoo leen di jiitiwaat. bi ci def mooy Adam euh, al ci Birama. Mhm. gis nga mbas mi nañ ñu dimbale ngir yàlla ak mbas mi nag ñu bàkku mu tëdd. Mhm. mbas mi dafa ñëwoon ñu ne dafa gane si ñu ne déetewaay gan ñetti fan lay am. Mhm. mu def lu ëpp ñetti fan toog ñu sampal ko euh, takkal ko néeg sampal ko lal mu ne dematul ci jiite réew mi ne kon nañu dëkk ak ñoom comme nag léegi dañuy dëkk ak ñoom bu mu tee liggéey bu mu xëyee nañ dem liggéey. bu nu wàccee ñëw fekk ko fi wala ñu yóbbu ko yóbbaale ko tool léegi nag nekk fii sama waaye lu ñu wax rek ñu ne mbas meetee am mbas meetee nangam am addina si ñoo nu ëpp mbas ñu ngi liggéey hmm. te dara teewul ñoom ñuy dem nañu dimbali bi ñu des na mooy accident yii ñuy wax gis nga hmm. autoroute bii ñuy wax waxoon naa leen ko bu yàgg newoon naa leen bés bu bloqué woo ak accident ñëpp fa la ñuy yem te leer na ci màggal te gis nga accident yi a ah, Birama hmm. lu ko fii jëlee defaguñu ko ndegam ñi jiite réew mi nga xam ne ñoom ñoo war a doxal ñoo jaarul ci yoon wi ñu topp ci ñoom duñ jaar ci yoon soo jiitoo da jaar ci yoon ñi topp ci yow mën a jaar ci yoon xam nga lu toll ni ab autoroute ay nit jaar fa di waaxu ñu naan ñee fu mu jëm mu ñu jaar ci digg autoroute bi kenn wàccewu leen ñu ne ñoom ñooy doxal réew ma te ne na réew mi normal du normal nga def accident yi ñu leen wax tooñ leen jërëjëf jërëjëf Malick Sall ca Italie ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum allo. waaw. Biram. waaw. gasama man la gasama. gasama waaw. ñu delloo ziar. boo ok man de li ma wax mooy man ci problème mu jeunesse bi mbëkk seeni ni ñuy bëgg a liggéey du ñu ñàkk liggéey bay jël gaal gi di dem di xaru gi pour ñëw Europe. yaakaar naa état bi nag war na xool nan la mën a jàppale jeunesse yi surtout ñuy def marché ambulant yaakaar naa soo ñëwee fii ci Europe feneen gaa yi dañuy jël ay camion léeg oto di dem état yi état di fa def ay marché. comme ñun am nañu ay marché hebdomadaires yu ñuy def par semaine ñu koy def bann benn bés est que état bi maire yooyu mënuñu organiser marché yooyu di ko def euh, ñaari ñaari ñaari jour su ko defee booy yi nekk Dakar état bi xool ban banque lay mën a def xaalis booy yi ñu commencé leen crédit au maximum cinq cent mille ku ko fay di nga mën a dem ba am sa oto di ci yetta marchandise di dem ci sous raison bi di fa jaayi ci marché hebdomadaire yi moom lañ def emploi boo xam ne jeunes yi dinañ génn Dakar boobu dafa taxawaalu mais il faut état bi jàppale leen ut banque boo xam ne daf ci def xaalis bu wóor ñu commencé ko ok ñu ngi leen commencé cinq cent mille ku respecté fay bi ubbi leen ay compte li ci dugal xaalis même sa compte vingt cinq mille demal ubbi sa compte banque visa yi ñuy may kenn bu ko jaay benn taché la rek soo amee sa reçu sa kayit yi la war nga am sa xaalis ñu may la ko ñu bàyyi loolu xel yi xool nan la ñuy organiser jeunes yi ñu mën a bokk ci ñuy développer utal leen ay système yoo xam ne dinañu liggéey participer ci développement bi te marché yooyu mairie bi suñu ko defee deux jours mairie bi dina ci am dara ñoom jeunes yi mën a jóge ci région yi te déplacé wu leneen li mooy li mu wax ci train bi train bu njëkk ay gaar yi dañ ko doon def ay bayaal yu bëri man sama village parce que bu njëkk matt la woon léegi ñu ngi ko jël espace boo xamante ni bàyyiwuñ ko kenn dëkku ci defuñu ko dara léegi dëkk bu nekk mën na jaay terrain yooyu su ko defee gaar ba ñu defaraat parce que alal bi soo de communautaire de gauche à droite am na fa ay terrain yoo xam kenn mënu ko laal soo waxee ñu ne gaal bi moo ko moom kon boobu nañu xool bi ñuy jaayee yooyu terrain ñu xool ni ñuy defaraate raay yi defaraat gaal yi mu ànd ak jamono man son problème mooy jeunesse bi di sacrifier life lañu xool nu ñu leen jàppalee nu ñu génn ci guuta gi ñu nekk dama xewul biram jërëjëf Gassama ca États-Unis ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Mhm. Alaaji Birama maa ngi lay ziar. delloo ziar. kii Alaaji Xaaye Gueye la. Alaaji Xaaye waaw. maa ngi lay ziar di ziar waa Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay ziar. di ndokkeel ñi demoon ci gàmm gi ñi yéene woon a ñi demoon ci màggal gi ñi yéene woon a. ñi waaj a dem gàmm waaw. Mhm. leneen li mooy euh, di leeral askan wi rek ni leen président de la République euh, ku bëgg kiri diine la ku leen cëral la ndax màggalu Tuubaa gi rek def na fa ñetti forage yu bees réparé fa benn forage bu màgget loolu boo ko xoolee à de deux milliards la te beneen beet képp koo xam ne dem nga màggalu Tuubaa yàlla def dàquñu la ci régime moom ci la jëlee décret def ko te jamonoy colonial ba léegi ñu ngi ko bëgg a mun ñu ko am commencé bari na ñoo xam ñàkk nañ seen liggéey président moo jël décret boobu signé ko bi mu toogee ci réew mi loolu jar na ko gërëm ñun ñun yëpp ñu gërëm ko waxuma nag après la Touba li muy jëfal këri diine yi ndax foo dem kër diine gis fa liggéeyam loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm bu baax ndax li ma doon wax rek sëñ bras de fer bi muy def ak euh, maanaam sax état de Sénégal ñoom juge yi dañoo waxan ci ñoom bu ñuy bu nekkee ay ay ay bu nekkee ay magistrat dañuy waat ne ñun duñ commandé duñ commandé décision justice beneen moom da koo commandé boo ko nit nag bu fekkee na ngaa wax ci yoon ñu yóbbu ci yoon waaye état Sénégal woowu ko ministère bi ko muy tëb di yóbbu ku jëlu jooy nag yaa xam nga dee loolu kon moom bu fekkee da ngay daan woote ban woote da ngaa war a dem bu fekkee dem na lañ loo xam loola la ñu bàyyi bu fekkee tur waaye nag dugal ci askan wi ci réew mi dugal ñoo xam te ne amul njëriñ réew mi loolu laay bañ ne ñëpp xam ne moom lu mu dafa jàdd yoon ñu war koo teg ci yoon bu ko tegee mu bañ ci yóbbaale nit ñi ponkal moom xel nag matériel borom borom xel la loolu lay wax ñooñu bi may jeexale mooy mbirum thermoside di gis naa Sonko ak euh, Barthélémy Dias ak waaye comme président joxe na huit cent millions jën ko séddale dix neuf famille kenn ku ne nga war dix millions loolu ku ci ci am dale kon nag loolu mooy wax président social bi ma wax ci président suñ kër ga sama kër ga suñ kër ga mën naa sori sama kër ga du sori de wasalaam. jërëjëf Xaya Guèye ñu jël keneen ci ligne bi biti réew 33 841 22 33. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw xanaa séeréer yi ñaari ñoo jàppoo ligne bi yàgg sa mbokk yi saabal sama mbokk séeréer yi ndax ne. <laughs> waaw. waaw tey naa def. sant ba alhamdulilah saabali. tey nag laaj bu bu am solo laa indi tey. Hmm, ayca. man nag solution laa bëgg solution réew mi la solution ban hmm. solution lañu war a def ba ba réew mi dox. Hmm. parce que man zone bi ma dëkk sama village natal am na soixante quinze ans. département de Vélingara. waaw ndox amuñu ko. courant waxu noppi. yoon sax instant bi suñu jigéen ñi saret la ñuy yóbbu saret wala sa ay moto. pour dem fan. te samedi bu jotee samedi bu jote man senegal bu samedi bu jote mhm. palais bi rek laa déggul am am amul problème. mais fépp senegal ku woote rek dina wax sama côté am na problème. wala ira ba solution la wala indi te wala fa man dama la doon kii région de Barcelone région de Barcelone rek. Mhm. te Sénégal moo ko ëpp budget si wàllu budget. Sénégal moo ko ëpp budget mais si wàllu développement dina ko def junni yoon te ñu amuñu pétrole amuñu gaz and and ci rek lañu am ah industrie man loolu moom ma jaaxal lan lu tax ñu duñu développé man loolu moo ma jaaxal lu tax te ñu mosuñu am guerre civile ñu am guerre mondiale nga ne yàlla musal fi yooyu lu tax ñun duñu dem Grand Ndiaye wax lu tax ñun duñu dem man Sénégal palais bi rek laa déglu amul problème palais Sénégal lu si des yëpp am na problème. citerne ba léegi même non loolu loolu loolu dafa rusloo sax ay nit di lay indi ay citerne di indi ndox jaay di naan citerne te camion boobu xam nga ñaata at la toog foofu di gaare non ma yoroon naa réew mi desan yeneen la jàppale quoi. ah jàppale ñu ñëpp waaw jërëjëf Sabali ca Espagne jaajëf Sabali ca ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam Birame Ndiaye na ngeen def. sant bu baax alhamdulilah Diop. Euh, man la Ngounda Diop Mbos maa ngi lay nuyu bu baax Birame. ñoo ngi lay fay Ngounda. Euh, waaye tamit euh, di nuyu sa technicien bi nga àndal. Mhm. di ziare Serigne seen Ndigal Sène ma nga Njàmbur Sine. Njàmbur Sine di nuyu sa Moustapha Dieng ma nga ca Naawel. waaye tey maa ngi lay wooyu fii ci région de Tamba. Mhm. waaye nag sama xel dafay daj Kaolack bu sama xel di daj sama région Kaolack nga xam ne ay jafe-jafe rek la yàlla xam na ni bi may ñëw fii de. Eh, bi ma jaaree diggante mbos ak eh, eh, ba ba ngay dem mbirkilaan hmm. ay jafe-jafe rek moo fi nekk yoon wi dafa dagg yàqu lool diggante mbirkilaan ba ba ngay dem mbos ba dem panel yoon woowu nga xamante ni si yàgg naa ko jàmbat tey jii kenn mënu caa jaar boo fa jaaree da nga xam li may wax waaye tamit diggante mbos ak gee ngi new yoon wi yàqu gi foo ko àpp rek romb na ko am ay dëkk yoo xamante ne si saa su nekk ñu ngi jàmbat courant te mënuñu ko am boo demee mbaam jigaan dëkku sëriñ aboo mbàkke ak sëñ jiili ñu dëkk fa tabax fa jumaa ju mag eh, ñu sampal leen ay poto lampe diirub juróomi at te ba léegi courant jaaru ca dama ne loolu jafe-jafe la waaye tamit boo demee fii ci Bosalel eh, ñoom it ñu ngi jàmbat courant dëkk bu mag eh, mënuñoo fexe ba am courant ñoom ñu ngi koy jàmbat bëgg nañ ko lool waaye tamit Touba Mbella day wax dëgg yàlla war nañ leen a taxaw ci réseau ndax réseau ba baaxul du benn mobile boo xamante ne si rek dafa fay taxaw mën a woote wuyu mu jafe lool kon tey ñoom it ci réew mi la ñu bokk nañ leen gën a taxaw ci réseau bi Euh, service yi nga xamante ni su ñor wàllu téléphone nañ leen taxaw ci loolu euh, maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf Ngund Ngunda Diop woote ca Mbos ñu daal ko jaajëfal jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum. allo. alekum maaleykum salaam. sëñ Ndiaye na ngeen sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah Aliou Diouf. Diouf Paris waaw. waa di nuyu Maram Faye boobu doon jéem a dugg waaye malheureusement. Mhm. mujjul dugg quoi. waaw di kii rek ñuy wax ne Macky Sall bon sëñ bi da ko gërëm ak yooyu bon mën na nekk sax mais man tey sëñ Touba bu dellusi woon tey entre Macky Sall ak Sonko ñetti exemple rek lay joxe sëñ Touba buggoon na ko jàng waaw fàttaleku nañ fi Macky ba mu demee Touba di di di di di di di di jàng di di jéem a kii xas xaside yi di jaxase ko yëpp. ko njàng bu wér la ko def sëñ Touba bañoon na ku ko noot waaw ba ba ñuy wax prix gerte bi dafa ne woon dañ noppi rek ba kii mais ba mu téyee gerteem tubaab bi ne ko ñaata mu ne ko ñaata boobu laa bëggoon a dégg maa moom sama gerte prix bu ma neex laa koy jaayee kon sëñ Touba amoon na ful la waaw Sonko nag loolu lay xeex ba léegi bëggul tubaab bu ñu noot moom lay xeex si si si CFA beeg si si ressources yi Macky Sall nag eh, ressources naturelles yëpp jox na ko jox jox na ko tubaab yi kon foofu ba léegi deful exemple sëñ Touba waaw bon ma bëgg a wax euh, si si si mbirum alliance bi PDS ak euh, ak PASTEF bon war nañ ci mën a xalaat. parce que euh, ñi fa des ay gor lañ parti du ñëpp a bon ñi fa des mooy ñu baax ñi euh, traître yëpp dem nañ kon ñoo ñu ñi fa des war nañ mën a euh, def discussion mun d' accord wala ñu bañ a d' accord mais war nañ ouvrir benn kii pour pour pour mën a ànd parce que ñi fa des ñëpp ay gor lañaa ah, toog nañ plus de huit ans di def opposition ñooñu ay vrai góor lañ duñu ay transhumants. jërë jërëjëf Aliou Diouf ca Paris ñu daal di jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. Adama Dieng. Adama yokkal kàddu gi. di la nuyu yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg waaw. waaw di la ñaanu jàmm te di ko sant yow di ñaan sama kàddu. ñëpp ci jàmm. Mhm. di nuyu sama mbokk Kajoor Kajoor rek ak fu ñu mën a nekk rawatina ñi nekk ci diaspora bi. vraiment Birama di ndokkeel groupe site euh, communication yëpp nag seen taxawaay ci màggal gi wax yàlla rafet na trop macha allah. jërëjëf euh, loolu wane na rek loolu mooy taxawaalu rajo média. Mm-hmm. delloo yéex rek sunu jaal rek ci alaaji Saasi Mbuub ak euh, xaasu mbay ak mbay laay ci seen mbokk yooyu wàññi ko woon. Mm-hmm. Birama man de antenne libre bi saabu ñëwee rek sama xel dafay dellu Kajoor vraiment di président Macky Sall rek Kajoor Kajoor damaa yitteel lool wax dëgg yàlla xam naa li may laaj bu fekkoon nekk na samay loxo ba nëgëni dëkk bu nekk la bu yàlla yóbbu naa ko waaye nag comme euh, am naa opportunité mën a tàbbi ci jataay bi damay gën a bàyyi gën damay gën a interpréter directement njiit réew mi rek rawatina ministère am boobu bu ñuy wax Mansour Faye nga xamante ni moo yore wàllu équité sociale ci wàllu ndox rek ak courant ak ay piste de production yoo xamante ni dëkk yu bëree bëri ci Kajoor ñu ngi ko ba na ngeen ko jotagoon hmm. ci dëkk bu ñuy wax dalax nga xamante ni bañ ko sancee léegi ëpp na téeméeri at ba na a mën a gul bénéficié wu ci courant kon ñi ngi gën a soññee bu baax rek di gën a soññ le ay maire ñing mi nga xamante ni mooy député gox ba di ko ñaax rek mu gën a góorgóorlu ndax it wax dëgg yàlla euh, bari na daal lu ñuy rawaanike foofu loo xamante ni jotaguñ ci te moom bokk na ci ñi nga xamante ni am na yaakaar ne seen loxo war na ci am ndax ab boo ab dëkk boo nee ban dénk la maire ba population ba am ci yaakaar tànn ñu ngi koy gën a waxaat rek di ko soññaat ci courant leen wër di gën a soññaat njiitu réew mi ci ay nomination ndax it kenn ku ne xam ne nomination dafa am solo ci ab gox ku mel ni Moustapha Sylla di maire Niassène wax dëgg yàlla bëgg nañ président bàyyi ko xel ndax it day jàmbaar day dimbali président bu baax baax bu loolu jàllee di féliciter président Macky Sall ci màggal gi ak taxawaayam ndax taxawaay bi rafet na lool ba ñaari titres fonciers yi nga xamante ni jébbal na ko xalifa général des mourides loolu yaakaar naa jërëjëf Birame. jërëjëf Adama Dieng ca Touba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon. 628 80 allo waaw allo Seydou yàgg naa tey <laughs> la. waaw ma euh, mhm. yàlla moo ko jox cëram. bi il faut ñu am problème ndax président Macky ci réew mi moo ko day nangu dogal te moom la yàlla dogal mu nekk président. ñàkk nangu dogal moo leen sonal huit mas mi nag delloo soññi delloo soññi askan bi ñu hmm. continuer geste barrière ndax mbas maa ngi jeexagul demagul si FM leen di sant ci liggéey bu baax bi ngeen di def hmm. ndax yéen a ngi a ngi ñaax askan bi pour ñu continuer ci mbas yi continuer respecter geste barrière yi loolu moom lu rafet la lu hmm. ci des nag muy journée mondiale ñi nga xam ne seen xaw ma seen xel ni seen xel matul mhm. malade manto yu bari nañ ci dëkk bi ñu bari ci mbedd mi la ñuy fanaan ñi seen mbokk ñoo leen abandonné baal leen ma ci wax ji dof boo gis ci kër lay jóge te ñii ci ñun la ñu bokk dañ leen war a toppatoo bu baax buñ leen entré ba pare du ñu am ku leen toppatoo di leen yóbbu ñuy faju li leen jëndal ay garab moo tax day am rechute delluwaat ci mbedd mi état malheureusement amul moyen remplacer seen i seen i njaboot seeni i famille ñoo war a góorgóorlu toppatoo leen bu baax maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ñaanal président Macky Sall fi mu bëgg a eggali réew mi ci lu baax yàlla na ko yàlla jàppale eggali ko lu kawe njortam merci Birame. jërëjëf Anna Mendy ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Birame. waaw. jàmm si sa jant waxal sa gars yi si ginnaaw ne ah. yaa mujj. waaw gaañu Fatou Ndiaye su bëri leen gaynde gi moom moo mujjee gaynde ma Sall waaw man daal li ma si wax wax dëgg yàlla Birama. Mhm. gannaaw bu ma leen jaajëfalee vraiment seen taxawaay ci màggal yi xam naa ci vraiment yëpp ndax euh, nit moom communication dafa am solo ngay wax ñu def ak foo mënti nekk communication bi jàll na waaye li nga xam dama ko si wax euh, wax dëgg yàlla ni ñu ko ci màggal bi lépp tege na ci yoon feebaru mbas mi njort bi ñu ci doon am coow yeeg wax yëpp dara amu ci waaw surtout ñu màggal nañ ci jàmm dem ci jàmm di ci jàmm amu ko wa ndax euh, suñu borom def na ci saafara déglu nañ euh, taalib bi moom ndigal rek ndax sëñ bi lu ñu santaane moom taalib yi def nañ jëfandikoo nañ masque yi ak sel yi di raxasu vraiment tamit daay yi tamit jàpp ci bu baax a baax a baax a baax rawatina président de la République nga xamante ni laata màggal gi am ñëw na jég sëriñ bi waxtaan ak moom lépp luy matuwaay ñu jël ko te affaire bi bi nga xamante màggal gi am na ba ba jàll tamit ah, cérémonie officielle bi tamit wax dëgg yàlla yebal ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñëw sant yi ak ngërëm sant sëñ bi sant na président de la république loolu wax na ko Aly Ngouille Ndiaye sant ak ngërëm bi loolu tamit lépp wane ne président de la république mi ngi def def def liggéeyam ni mu waree ndax euh, comme ni mu ko defoon même élection présidentielle yi ñi nga xam ne président mu ngi ko doon def bu mu demee ci ci xalif général de wax ko ko ne ko ñaanal naa la bool naa la Serigne Touba demal nga ñaan ko foofu tan dama ko ñaanal loolu gis na ko président de la te li may wax nii nit ñi xam ne xam ne euh, président de la république nekkul ku nga xamante ni bi moom bi mu falu ak léegi ci un an la toll quatre ans yi mu def quatre ans yi nga xamante ne pour dem élection bi quatre ans yi liggéey la liggéey la tal ci liggéey la nekk ñeneen ñi wax wax dañu wax moom politique di def ay montage président wax na li président président waxul lu gënuñu koo jàng alxuraan gënuñu koo xam ne ñu wax ay montage donc la opposition bi di def di saboté te loolu ñuy wax ngi te ku def analyse wax dëgg yàlla xam ne président de la république ci millions yi nga xam ñoo ñoo bind ñoo ñoo bind ci ci liste bi électorale bi ci millions yooyu nga def calcul trois millions yi nga xam ne ñooy bénéficié wu ci bi ñooñu ñooñu kenn xam ne président de la république jàppale ak 507 yi ñooñu ci ku ne xam ne président la ak seen ministre ak benn bokk yaakaar. jërëjëf Mamadou Medor ñu daal di ko jaajëfal jël dafa am keneen ko yegg si. salaam. El Hadj na ngeen def waay. sant bu baax noo tudd yéen ngeen fi yàgg te wér ci barke Mouhamed. amiin jërëjëf li waaye li ñu doon waxtaanee foofu ci Touba. Mhm. muy Tidiane muy Mouride muy Xaadir muy Laayeen boo doon fu Tidiane yi nekk toog kooku Mouride da ngay xam nga ñu Seydou Hadj Malick Cheikh Ahmadou Bamba ñoo bokk maam maaram. Mhm. te bu dee naan jëlee aw ak Maram Jóob ak Anta ko bokkee saayir bokk ko batin li ngeen def nag Aliou Sall ak Mbacke si la boo boo gisee Aliou ak ñoom Mbacke da xam nga si boo demee ñoom xëy na ñoom ñu dox ay seen xam ne di ciy defar doomu aadama yan na li ñu la teg coono siraatal mustaqiim jërë ngeen jëf. jërëjëf mën ah, Xaadim ah, Gueye Pikine. ci moom la ñuy voilà jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Xaadim Gueye ca Pikine ci moom la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alassane Wade mi fete woon ci xarala gi. lu yees ñeenti simili Aysatu Gueye ba ñoo ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.